lii la war a waxtaanee bu àndee ak euh, dogalu borom bi ñu doore ko rek ak match Sénégal Gambie bi nga xam ne Assane tey jii la muy Sénégal Gambie 14h tey jii incha allahu rabbi. waaw match mën naa neex. si hmm. kaw ñu football footballu dof. Hmm. kese moo leen ci mën a génn. bañ hmm. fee nekk jaay ay affaire professionnel ak affaire tayel ay affaire duut yu rafet. bu fekkee xëlëf xëlëf dóor bal bi bu baax bal yu sec mën nañoo am ndam. te góolub góolub bu euh, gambi bi da koy taawi maam góolub gambi boo ko bëggee dugal si koñ ya sa kaw mm. Mm. foofu ngay dugal bal ya loolu sa kaw ngay dóor bal yi maam ah ma ci kaw si kaw bu te bu mu doon digg bi maam sa koñ ya koñ ya sa kaw a kaw bu mu doon wala raadu teer si suuf si mm. koñ waaw moom boo ko defee man ngaa am dara te it na dóor yi na tiir yi di dal xam nga ab tiir bu dal boo ko yàbbeet day awaar ne duggaat mais Sénégal seen tiir yi baaxut mënuñoo door cornel cornel mënuñoo door coup franc mënuñoo door penalty yi te penalty yi ñu jël ci Coupe d'Afrique. penalty ci lañ nekkee champion d'Afrique gis nga ko penalty yëpp xam nañ ni sax penalty bi penalty far force la ak penalty. yow li nga wax ni yëpp ñu ne mënuñu ko pourtant ci lañ jëlee coupe ci lañ nekkee champion d'Afrique. léegi moo tax ma ni la penalty Sadio Mané bi yow seetaan nga ko di xam nga du du professionnel. ah waaw. lu doon. na penalty bii sama bakkan laa teg ne dugg far force def si àdduna am bépp dóor ko dóor boo xamante ni àdduna la ko yan la yan bii bi mu hmm. dugg. mais kooka tey jii am na ñoo xam ne daw ñu sonn ay ñoom Fadiga daw ñu sonn si penalty yi daw ñu sonn si corner kon il faut que ñu jàngal suyéer yi nan la ñuy dóoree corner nan la ñuy dóoree coup nan la ñuy dóoree penalty yi loolu bu ñu ko mënee rek Sénégal ne la góolu Gambie bi c'est faiblesse am mooy di jàpp ci koñ yeeg non damaa xam ne normalement rek africain la africain yi mënuñu loolu d'accord mënuñu ko te góol bi kii na boo ko boo ko yokkee taawi ko rek du ko du ko jëli sa kaw rarement ngay xanaa Barthès Barthès moom daana jëli yooyu waaw. yow noo génnee Afrique ba dugg Barthès. waaw mais dama wax góol yi rek góol yi ñu xam ne boo masaan taawee ñu dem jëli bal ba. Hmm. ku demee ni Barthès ak uh, kii Mongo kii. Hmm. góolub kii bi ñooñu daal en tout cas ñu aay lañu woon moom. <laughs> góor yooyu non non de góor yu aay lañu woon góor yoo xamante ni moom. maam boo dee dugal dangay ngay tànd léeg dóor lu la yàlla jox nga jël mais nax leen ak yooyu moom du dawut yomb. d'accord. ma jigéen noo gisee match bi da war a dox suñu diggante Gambie ñun ay ñu nekk ay dëkkandoo yoo xam ne jàpp naa ni Sénégalais yëpp ku ci supporter Sénégal it ndax bi ñu jël nekkee champion d'Afrique ñoom it Sénégal lañ doon supporter ci CAN bi. waaw kon ay dëkkandoo lañ. yoo xamante ne ni yu jege la sax parce que Gambie moom daanaka kenn mënu ko génne ci biir euh, Sénégal euh, lu ñu mën di wax itam ñëpp xam nañ ni suñu joueurs yi moom ay professionnels lañ mais sooy bu metti mooy gars yi dañu commencé du jubilé déjà. te dooraguñu match bi affaire yi waruñu ko jël comme si rek war a mën a jël équipe bi xepp ko boo ko defee rek nga am problème parce que démb euh, Ghana bu muy fubal ak euh, Cap Vert. Euh, peut-être ñu bëri dañu jàppoon ni Ghana wax dëgg yàlla équipe bu mag la te gis nga ni ko Cap Vert def donc euh, parfois waruloo di xeeb nit yi looloo di dal Nigéria ba muy football amoon na ay difficulté mm. ak yeneen équipe yi ñëwoon Égypte gis nga ku ku ku xam-xam ni daaw moo moo demoon ak Sénégal euh, final ci ci ci ci ci CAN bi mm. te teewul gis nga démb dañu am ay jafe-jafe pour pour pour mënoon dem fu sori foo xamante ne nii peut-être yi ñu ngi leen fa doon xaar mm. man daal problème am woon kan bee passé parce que bële passé peut-être dañ doon wax Covid bi la woon moo tax seen premier match yi ay jafe-jafe jafe lañ ci amoon mais cette fois-ci nag nañu nekk ay professionnels jël match bu ci nekk rek. Mhm. ñu jàpp ni final la ñuy fubal bis bu ñu ko defee rek sénégalais yi dinañ kontaan ci ñoom te xam naa ne Aliou Cissé loolu bàyyi na ci xel bu baax a baax son yi bu. macha allah voilà. jërëjëf am na solo kon ñu ñaanal leen rek yàlla na ci eh, jàmm rek topp gis nañ nag classante bu am ci réseaux sociaux yi mais lépp def naa ci euh, amicalement rek lañ ko teg ndax suñu digganteek ñoom jàmm rek ci mën a xaj ndax ñii ngay sëy fële ñii ngay sëy fii eh, bon ah, ah, ah waaw am nañu sëy foofu Gambie am nañu ñii ngay sëy fële am nañu ah, fii da nga war a sëy nga ñi ngay sëy rek da nga ne ñii ngay sëy ñi ngay sëy da nga sëy dama lan laa wax. sëy yi nga wax dama ne ñee ngay sëy yi fële. waaw kay loolu nga mujj a si fii. non loolu nga mujj a wax sëy yi wax mais sëy nga wax sëy. man ko léegi waxal kon Gambie lu may wax kon. ah da nga war wax Gambie ak Sénégal ñi nga takkante di sëy. waaye loolu laa nga wax da ñi ngay sëy di ngay sëy te sëy moom mënut a am te takk amul. jërëjëf merci euh, jërëjëf euh, euh, waa kii nee na sooy wax mu bàyyi. voilà saa yi nee na Fallou Amar nee na nga bàyyi babilaas bi ngay naan. Fallou Amar moom it babilaas bés ku naan nees koy def luñ ko defaree dañ ko defar pour oto yi. ah waaye babilaas defuñu ko pour moteur ko pour ay eh, eh, babilaas pour nit ñi la nag Fallou Amar ah. Eh, hmm. man ne kuy guux xëy na kuy guux attaaya. si sa bos boobu laa jëm si nga naan.